mbokk yi ñu sant gërëm Dado Thiam bu ko defee ñu dem seeti ji aju ci wàllu sélection football bi nga xamee nag mu ngi am barki Dembo njaay Euh, ci loolu nag gannaaw bu ñu tànnee Lamine Kaba Badio def ko président bu Gambia Football Federation nee nañ nag fédération nga xam ne ñoom ñoo nekk fële ca tundu Afrika bokk na si nag mooy Tanzania seen football Federation euh, bi nga xam ne nag ko daal di tànn lu toll si juróom fukki ak benn loolu la daal di am ki nga xam ne nag moo toppoon ci gannaaw nag di Sadibou Kamaso moom moom it mu am ñaar fukki carte ak juróom mu mel ni daal moom moo am ndam ni ci lii di élection booba ñu dem seeta ji Seydou Camara ci xibaar boobu président yi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk foofu ci réewu Tanzania Uganda ak Libya jiite seen football fédération yi muy mbootaay bu yore lu aju ci wàllu football bi ñoom ñëpp bind nañ ab bataaxal daal di jaajëfal Lamine Kaba Badio ak exécutif am bi ci ndam bi nga xamante ne am nañ ko ci GFF presidential election yi ñu def fii ci biir réew mi Lamine Kaba Badio moom lañ tànnaat defaat ko président bu Gambia football fédération gannaaw bi nga xamante ne nii buñ sànnee karta yi ba compter karta yi moom Lamine Kaba Badio konteel nañ ko lu toll ci juróom fukk ak benn ci carte yi ci juróom-ñaar fukki carte ak juróom-ñaar yi nga xamante ne sànni nañ ko loolu nag waral na am na 66 percent ci carte euh, yi euh, duma ki nga xamante rek moom moo nekk Sadibou Kamasso ci samedi bi nga xamante ne moom lañ weesu mu nekk ndam bu rëy bi nga xamante ne Lamin Kababajo ak exécutif am bi am nañ ko ci élection boobu lii nag moo waral président bu football fédération bu réewu Tanzania ñu gën koo xamee ci kii di Mr Wallace Karia bind na ab bataaxal daal di ko yóbbante ci Gambia Football Federation di xamle ne ñu Moussa Badio ci ndam bi waaye tamit am nañ mbégte ak kontaante pour wane ne kontaan nañ ci ndam bi nga xamante ne moom la am loolu nag nee nañ li ko waral am nañ yaakaar ne mooy kóolute bi nga xamante ne nii ñiy doxal lu aju bi fii ci biir ji réew mi am nañ ko ci Lamine Kaba Badio pour mu continuer jiite footballu mi Mr Kayra mu continuer ay kàddoom sax di xamle ne dinañ continuer ñoom fédération bu réewu Tanzania pour liggéey ak Gambia ci njiitalu Lamine Kaba Badio ak exécutif bam bi su ko ne moom lañ nekk di indi ci tàggat yaram bi la mu di football naka noonu it président bu Uganda football fédération bi ñu gën koo xamee ci honorable Magogo Moses Hasim moom tamit bind na ab bataaxal ci njiitalu fédération am bi euh, di jaajëfal Lamin Kaba Bajo ak exécutif am bi ci ndam bi nga xamante ne am nañ ko ci GFF presidential election bi nga xamante ne moom lañ def fii ci biir réew mi mu ne Lamin Kaba Bajo liggéey bu xarañ bi nga xamante ne rek moom la nekk di def moo waral ñu joxaat ko beneen mandat mu continuer jiite footballu réew mi te mu ne lii moo waral nag ñu ngi koy congratuler ci njiitalam ak fédération am bi mu ne waaye tamit mu ngi xamal gaay ne dinañ continuer liggéey ak GFF mu di Gambia Football Federation CAF ak FIFA pour ñu fexe nan la ñuy indi yokkute ci wàllu football fii ci biir di tundu Afrika ak ci àdduna si ci boppam président bu Libya Football Federation bi tamit ñu ngeen koo xamee ci Abdul Hakim Ashalmani moom tamit gaarale na ay kàddoom ci bataaxal bi nga xamante ne bind na ko yónnee ko Gambia Football Federation mu ne moom ak fédération am bi nag ñu ngee jaajëfal Lamin Kaba Bajo ak tiimam bi mu di ñu bokk ci exécutif am bi ci ndam bi nga xamante ne am nañ ko ko ci xëccoo bu ñu doon def ci wàllu football yi réew mi ci kaw noonu tamit mooy xamle ne liggéey bu xareñ ak déggute ak xam-xam bi nga xamante rek moom la Lamine Kaba Badio am te loolu la nekk di wane moo waral Gambien yi dënkaat ko lu aju ci wàllu footballu réew mi mu ne lii moo waral fédération am bi ñu ngee tatagal di jaajafal Lamine Kaba Bajo ak exécutif bi waaye tamit ñu ngi leen di ñaanal pour ñu am liggéey boo xamante ne ni liggéey bu muccub ay la bu ñu war a def ci footballu réew mi ak lépp li nga xamante ne mu ngi seen kanam daal ñu génn si am ci ab ndam Seydou Camara Star TV News